abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne. jërë ngeen jëf Macky Sall borom ñaari mandat yeeg buña l'observateur ne nañu joxe na ay explication ci tuxal gi mu tuxal élection présidentielle ak fa mu ko teg. bil yéene kay bi ci ndajem conseil des ministres gi ñu doon laam-laamee démb ndax dana amam du am te ñu mujj ko amal ci ngoon gi fa la waxee moom président Macky Sall ne ñi yaakaar ne nguur mooma yitteel ba tax ma dàq wote yu jum nañu su ma a na ay yoon yu bari yu ma ko mën a jaare mu ne bi may wàññi ko jëlee ci sept ans di ko yóbbu ci cinq ans ma ci forcé ba may taxaw naa naan def troisième mandat kenn saxalu ma woon suukar te mënoon ko def li mu def mu di toxal woote yi waroon am février yóbbu ko 15 président Macky nee na da ko def en toute responsabilité devoir ne dafa gis ne dàq woote yi mooy li ci réew mi ba keroog condition yëpp di jàppande ñuy soog organiser élection mu dolli ci ne mënutoon a di xaar assemblée nationale ndax délai bi du ko ko may bi di l'observateur nañu ba ca noppee ca élection yi lépp jàppandi ba ñu mën ko def ci anamu mucc ayib Soleil national nañu moom fa mu taxawoon buusiwu fa lu toll ne lii dee ci we donte coowleeg mbambul yi ñoo ngi bàyyee fu nekk muy ci réew mi ak ci bitim réew terewul élection présidentielle yi moom beneen data rek waaye datu 25 bi moom tuxu na tifaaxan le témoigne mel ni ko réeroo gi ñu doon joxt ci diggante président Macky ak premier ministre am Amadou Ba réeroo gu amu ca ndax démb ba ñuy na fa confiance bi mu amoon ci yow dara jugu ci Amadou Ba moom it delloo ko wax ju neex ja ba di ko wax ne sama loyauté ci yow tey la gën a dëgër dogal bi nga jëlit keroog ñetti fan ci wéeru février mu jëm ci toxal datu wote yi ànd naa ci décision ba journal Tribune gis ne naxante am na ci seen diggante ne ak li fi jaar yëpp terewul ku nekk ci ñoom naan sa morom doy nga ma bi le jour nañu Macky Sall décrispation la bëgg mooy ci coow li juddu ci réew mi gannaaw ba mu reporté wote yi di ñaaxo ñaaxo yu ñu dafa am diggam ak Amadou Ba di ñu tëj ci kaso yi ba ci dialogue bi mu fi junjoon dialogue boobee mu di waxtaan yu bëgg a wote journal L'As moom la xëye ba di ñu xamal leen jiit réew mi Macky Sall ubbi na ay yoon ngir ñu toog waxtaani réew mi anki dina kay nañu moo taxit ma ngay manœuvrer lu rëy di nasaka nocci ngir dal dënni rawatina ci géopolitique bi engagé wu na ci lépp lu mën a indi jàmm akuk dal ci mi dialogue bi mu bëgg a wote anki dina kay mi ngi laaj ñan ñoo cay wuj source ne ko loolooy laaj bi nag ndax candidat yi waroon a bokk ci élection yi donte reporté nañu élection yi taxul ñu tekki seen jaaj nee nañu élection yi dina am ci réew mi ca date ba ñu ko jàpp ba moo waral ñoom candidat yi ñoo ngay wéyal seenub di ñu wax ci xëtamu njëkk ne candidat yi fare ci ñu fas yéene mooy mu dellu vox populi nañu mer ba futt la def boole cekkit di dànkaaf Thierno Alassane Sall borom république des valeurs di ñu xamal ci xët mu njëkk vox populi ne Quotidien nee bi candidat yi ci a tuxal date élection yi kenn ci candidat yi taxawal FC 25 di Aliou Mamadou Dia bu PUR mi ngi ñu wax ci xët mu njëkk journal L'Info ne Macky Sall au lieu mu doon gardien de la constitution waaye wan na àdduna bi yépp ne mooy gardien de la confusion Macky Sall nguuram jeex na ay kàddu la yu ñu gis ci xët mu njëkk Walf Quotidien mu di kàddu yu mu jëlee ci xalifa général bu Léona Niassène di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass Serigne bi nee fa soxlaatuñu Macky doyal nañu ci moom sëkk na dem te bañ a yàq aveniram bi nañu moom Serigne sëriñ bi ñaawlu na it li ñu teg ci kaw groupe Walfadjri mu di licence am bi ñu nangu sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Niass xalifa bu leew na ñaseen nee na Moussa Bocar ministre de la communication na delloo waa Walfadjri seenub licence nu mu gën a gaawe lu ko moy du ko jikk maître Moussa Bocar Thiam ministre de la communication tur wi ko journal yi xëy àndandoo tuddee mooy avocat bi solo robu avocat njuumali Moussa Bocar Thiam l'avocat du monstre éditorial bi mu A